télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV dinga ci gis sa falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow yaram santé animal ngir a saytu sama mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. ngir nga mën a jaar jaar. danga ko seetaan bu dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar ni nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am veto fii ma jaar animal fii ci Ladoum TV Ladoum di fa am veto fii ma jaar animal fii ci TV dina mën a wax sa jaar jaar danga ko seetaan raw mm. visibilité dinga ko am um. promotion dinga ko am uh. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar dinga am um, ndam um. Ladoum TV télé askan bi wane fi nga na ñëpp xam Ladoum TV ñu koy sunu télé Ladoum TV ding fa am veto fii ma jaa santé animal fii ci Ladoum TV Ladoum TV ding fa am veto fii ma jaar santé animal salaamaaleykum euh, chers téléspectateurs ñu nuyu leen ziar leen bu baax amati mbégte ak cawarte gu rëy ñëwal leen ci seen émission fi ma jaar fi ma jaar tey jaar fi nga xamante ne moom mooy Medina Zac Medina Zac nekk fi nga xamante ne mooy Cyprès Rufisque jege na ko lool euh, ñu seet fi nag ki nga xamante ne moom mooy madame Ndiaye Marème madame Ndiaye yor bergerie boo xamante ni tur bi mu ko tuddee dama koy bàyyi mu waxal ko boppam mais en tout cas li leer mooy vraiment y a que ci jigéen y a que kon nag tey mbokk ak xarit ak am di jàmm ñëwal nañ leen tey ci jigéen xam ngeen jigéen ñi mën góor ci élevage dañoo bari lool bokk na ci moom madame Ndiaye nuyu nañ la ziar la bu baax. man lay fay Jibril di la ziar bu baax a baax. mu doon ci ñun mbégte gu rëy. ñu ñëw mm. seet si bergerie bi. pareillement man aussi mu doon mbégte bu rëy ci man. aywa. waxal gars yi kañ nga dugg ci élevage. élevage bi ma commencé yàggul mën naa ne fi mu toll nii débutante la. Mhm. parce que maa commencé euh, fin 2021. mooy fin 2020 début 2021. Euh, début 2021 euh, lan nga découvrir xar yi ku la ci dugal. Eh. sama dafa am amaru xar. Mhm. nekkoon ku bëgg ay xar kër dafa amoon ay xar ñu ay xar ci kër gi. Mhm. dafa demoon ba ñu ñëpp loolu daf ñu poussé ñëpp dañ bëgg ay xar. Mhm. waaw loolu foofu laa commencé am amooru xar. waaw ba yàlla boolee ma sama sang bi Njaay mu baax loolu aussi. tax ma yokk amuru xaar bi dugal ma si élevage waaw ma dugg ci daal. aywa kon mbokk yi bu ñu ko déggee mu mel ni borom këram moom moo ko dugal ci li nga xamante ne moom mooy élevage nga am bergerie début 2021. waaw tuddee naan bergerie bi. bergerie xaritu jëkkëram. ñëw defe naa ah, déggagu leen ko woon bergerie xaritu jëkkëram bu ko kenn piraté nag. kon mu mel ni madame Ndiaye ñaareel la. waaw ñaareel la. macha allah ñaareel la aywa nga dugg ci début 2021 euh, naka nga ci duggee. le grand champion borom bergerie Mame Fallou moom ma wan ay xar. Mhm. man ma bëgg xar yooyu di ko wax Babacar moom au bi nag gaw ma woon foogul woon ne man man naa yàq xel affaire yooyu noonu. Mhm. après par la suite nag lañ ci nekk nekk nekk mu andil ma fi euh, xar bu mag bële femelle bu mag bale mhm. bi muy ñëw mi indaale benn doomam bu góor femelle bu mag bi mooy kan mooy xaritu jëkkëram sama trondoo la ok macha allah <laughs> bi muy ñëw mu indaale benn doom moom kon daa mel ni ku leen ko joxoon Moustapha Diallo waaw ok moo bu mag boobu doomu kan la moom femelle bi femelle bi doomu Carlo di la doomu Carlo di nga tàmbalee sa laa commencé si élevage mhm. mu indaale benn doom bu góor ma mhm. tuddee ko Ousmane Sonko ko après par la suite mu indaale tamit ñaari añel yële bu ñebbe bi leen ma tuddee ko Ngoné Laxti mhm. beneen bi ma tuddee ko Yacine Boubou mhm. ñooñu laa débuté woon commencement aywa mu mel ni moom xëy na yaatalam du euh, sori lool ndax bu ngeen gisee ni euh, début 2021 ak léegi ci ñaari at képp la toll kon bëgg-bëggam la woon wax na ko borom këram euh, Babacar ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax mu daal di ko ciy dugal mu ñëw nag indaale femelle boo xamante ne doomu Carlou lii la mu ñëw am fi doom ko tuddee ko Sonko aywa yeneen femelle yi ak yeneen mâle yi dugg si muy demee nan ndànk-ndànk mu demee ndànk ndànk par la suite le recruter Aydon bi. Aydon mooy maal bi ma tuddee ko Aydon. ok waaw par la suite ba xool nag ñu fi des ña fii lañ juddoo. ok ok à part Aydon bi kee lañ fi jëndaat Debbo. Aydon kan moo ko jur. Aydon doomu Chérif la. ok doomu Chérif la waaw ok Chérif doomu Chérif Kamal. ok macha allah Kamal ok aywa ñoom mu mel ni bi ñu leen dugalee moom femelle bi. Hmm? ak maal bi. Hmm? ñeneen ñi ci des ñëpp fi la ñu juddoo wala. non non ñeneen ñi ci des juddoo ñu fi parce que après euh, euh, mâle bi ñaari euh, femelle bi mu ñëw dafa ànd ak ñaari añel yële. mu nekk Yacine bu ak Ngoné Latyr. Mhm. ak jërim bi ak yaayam ci la àndoon. ok moom yaayam dafa am un mois yaayam daanu. Mhm. waaw moom dafa ñëw judd un mois après yaayam. yaayam daanu waaw. di nga ñu présenté xar yi léegi ci kanam. comme ni nga yoroon daan nga nekk ci xar yi daan ci sonn ci jamono jooju. waaw daan naa nekk ci xar yi daan ci sonn mais pas comme aussi li nga xamante ne ma maa ko moom sama bopp. Mhm. xar yi man maa ngi ci toppatoo. Mhm. foo moo yor moo yor lépp. Mhm. ma dugg si élevage. effectivement sama cousin la moo ma jàppale loolu aussi nag. moo ma jàppale xar yi moom mooy xool bu ñu feebaree. bu ñu amee problème lu ma guddi guddi ko oowee dafay bàyyi itam yëpp ma moom ma jàppale la aussi. ok mel ni jaar jaar bi euh, euh, coono dafa mel ni bariwu ci parce que bu ma seetloo danga dugg si rek dem ci champion yu mag yoo xamante ni seen xar ñëpp ko bëgg nga daal di duggee noonu ci élevage mais yan difficulté nga ciy faral di am. waaw difficulté yi des fois day xaw a nekk loo xamante ne comme guddi gi des fois xar war am doom. Mhm. man jigéen maa fi nekk. Mhm. damay obliger toog di veille Assane mi lay mujjee oo. Mhm. n'importe quelle heure su ma ko ooyee alors Assane xar bi nangam nangam dafay daw ñëw. dafay daw ñëw waaw mbégte la daal amul ay difficulté bari aussi parce que dama ko bëgg dama ko sentir. Mhm. kon mbégte la. comme boobu léegi yaa ngi koy forcer Alsaan ñëwal nga dugg sànni waale ci kàddu benn yoon. comme boobu ba léegi mu ngi insisté da nga maa seetaan lay wax boobu ba léegi parce que mel na ni émission bi yow yaa ko waroon a def. jàppale Marème ci liggéey bi euh, euh, incité ko sax à mu dugg dugg ci élevage bi euh, lan la da nga gisoon ni mënoon na ko occuper ba nga xamante ni du dugg ci ay détails wala vraiment yow it passion bi daa nekkoon ci yow nga jàpp ni am na espace bu lan moo taxoon nga vraiment poussé ko à mu dugg ci élevage. non xam nga Marème moom. gëm naa ne maax moom dañoo bokk loo xam ne mënuñu mënuñu ko séddoo. parce que sama cousine la. papam ak sama yaay ñoo bokk pap benn côté. mu ñëw duggaat si loo xam ne muy xar. Hmm. maîtriser wu ko carrément mais am na amour bi. Hmm. te man yàlla dafa def si xar rek laay yëngatu. Hmm. xam nga léegi bi mu commencé di dugg ci loolu noonu man. ma bàyyi sama ay action yu bëri ma sutoon mën ne ma ne xaar ma jege ko parce que gën a jege gën a yey moom aussi mu neex a mu neex a jàppale parce que boo ko waxee da lay loo ko wax si xarit rek amul amul amul demi mesure da koy wax taj mu def loolu noonu hmm. loolu yoo ko tax tey jii ma gën ko ñeme hmm. parce que cote sa yombul hmm. parfois ngay cote sa nit muy déglu Samba déglu Demba déglu Paate te loolu noonu du sotti mais moom loo ko wax rek loolu lay def daal si hmm. gàttal kon dëgërul bopp comme ni koy faral di waxee conseil jigéen yombul daa mel ni ci côté xar yi moom vraiment lépp loo ko ci jox ci conseil euh. non loo ko moom loolay def su ma nekkoon tey jii nii su may ñibbi tey ma ne ko subaa xari bu ñu naan hmm. tant que hmm. jël décision boobu xar yi bañ a naan <laughs> pour wax la ne moom li ko wax daal da koy def non c'est mais en tout cas nekk na lu am solo vraiment yombul tey mu nekk jigéen nekk ci élevage xam nga ni eh, jigéen vraiment dooleem néew na ci mu war a mën a gérer xar yi mais d'habitude na lay demee comme xar war a jur guddi yow déjà nekkuloo fi da ngay bàyyi activités yi daw ñëw wala da nga koy programme nan nan ngay faral di def ak genre cas yu mel noonu. non man maa man maa ko tijjil sama porte yëpp ma ne ko lépp lu mën di am. Mhm. tey jii nii bu dul woon li ma yor soxna sax mën naa ñëw defar fii nii. ndeysaan dëkk fii. Mhm. parce que tey jii moom mu ñu demee ba ñemee xar yi di si mhm. investir yenn yenn somme yi. yow yaa tax man maa tax. dëgg la wala am naa si wàll wu rëy dama yor soxna looloo tax ñëw ñëw ma dëkk fii. Mhm. mais sinon damay ñëw dëkk fii xarit lépp lu si am ma gérer ko. Mhm. moo tax ma nekk ko bu mu mënti doon. Mhm. ba fajar loo loo dégg si xarit lu la jaaxal. soo ma wooyee damay dagg lépp lu may def ma ñëw. damay dagg lépp mbokk yi euh, Alassane nee na dafa yor soxna te ñemewul soxna si moo tax ñemewul tabax fii kër mi wala waxu loolu. <laughs> waaw aywa mu mel mu nekk lu am solo vraiment euh, yombul. mais ñu ngi lay remercier ñun ñëpp parce que élevage nekk na loo xamante ni yaatu na yaatu goo xamante ni lépp loo ci defal benn nit képp ku nekk ci élevage euh, daf la ci war a remercier bu baax xam naa dinañu dugalaat léegi ci kanam. ñu mm-hmm. daal di yëgale eh, waxtaan bi ak Marème. merci beaucoup Alsane Marème Alsane vraiment nekk koo xamante ni mooy sa souteneur di la ah. jàppale bu baax ci xar yi nee na nag dëgëroo bopp sank <laughs> euh, yaa ngi woon ci li nga xamante ne moom mooy di jafe-jafe nga xamante ni di nga ko ciy faral di am. Mm-hmm. que dundagum ko ci ñaari at yéen yi ay xamante ni yu neex la ci xar yi maanaam xar moo jaay wala moment boo xamante ne vraiment sant nga ne lii neex na ci quoi. <laughs> non pour l'instant moom jaayaguma xar nag. Mhm. waaw pour l'instant jaayaguma mais plaisir bi ma xar yi amee doom damay kontaan. c'est pas bu ñu amee ba diis dama nelaw guddi gi. Mhm. dama leen di xalaat damay jaabante damay jaabante toute la nuit surtout bu ñu waree accoucher damay jaabante di yëg di xool di yëg di xool. Mhm. bu ñu amee doom damay damay ànd ak mbégte. am na ko damay ànd ak pas pourquoi moi je vais vous dire pourquoi. bu xar yi amee doom day kontaan c'est parce investir na investissement saa bu xar juddoo mooy la nga investiroon am na amortissement boo ko jaayee wala boo ko yoree ci biir gerte gi mooy mm. gerte gi yokk na macha allah eh, mu mel ni nag loolu moom mooy mbégte gi ngay gën di sentir mu mel ni gars yi gis ngeen fi xar yu rafet lool du ñàkk ñoo xamante ni contact mais est-ce que pare nga tey par exemple tey bul ay gars woowoon bëgg ci xar yi mm. pare nga instant bi pour jaay wala ah waaw hmm, pare naa pour jaay parce que tamit kuy liggéey ku nekk ñaan nga yàlla buntu ubbeeku mhm. buntu ubbeekoo dañuy jël mais nag ma parce que yow li ma dégg ni moom nga jëndee say xar c'est tellement cher mais macha allah wax élevage boo ci dugg li ci ëpp solo mooy nga am crème mm. am lu rafet loo xamante ko ko gis bëgg nekk na euh, lu am solo yan nag euh, ban moment est-ce que mus nga cee am naqar est-ce que loolu mus na laa dal nga maanaam tey ci xar yi nga gis ci loo xamante ne neexu la wala yu mel noonu mus na ma dal parce que xar bee ma tuddee jirim bi. Mhm. man dama am doom février. Mhm. xar bi juddu avril. Mhm. un mois après yaa ji daanu. mais jour boobu fekk la fekk alsan dama mel ni kuy jooy nit. Mhm. yàlla xam na ko daa moo koy jooy jooy jooy jooy. Eh aywa yàlla yàlla yërëm ko ah, yàlla ko daf ma jàppoon boobu moom ma ko parti jamais moom si affaire élevage yaay ji moo tuddoon nan yaay ji moo tuddoon Madiaga Madiaga Madiaga laa ko tuddee woon waay Madiaga yàlla ko yàlla yërëm ndeysaan nga jooy ci jooy yu métti yooyu ah boo ci sañee jooy jooy yu rëy yooyu ñu sañ laa wax yàlla na ko yàlla yërëm Euh, aywa léegi nag euh, ñooñoom ñi nga xamante ne ñoo nekkoon euh. fii moom mi nga xamante ne daanu na macha allah ñu ko ci masawu mook élevage ñoo ànd saa su nekk di nga ci am boo xamante ne da koy bëgg lool mu sori ci sa xol mu jekki-jekki dëddu la war la gannaaw comme ni ko yàlla defee ci ñun biir ci nit ñi mënta ñàkk yenn saa yi mu am ci mala yi waaye nag macha allah ñim fi nekk ndooloon nekk ay champion yu mag a mag a mag ñoom lañ leen di présenté kon Marème mm-hmm. dafa mel dañuy bàyyi Alsaan moom mu dugg présenté ñu xar yi voilà waaw Jibril kii mooy Aydan euh, moom doomu Chérif la Chérif doomu Kamal Kamal doomu Joni Joni moom champion Siré moo ñu ko joxoon quoi ñu ko si remercier de passage. ba tey ñu ñëwaat si jeune mâle bii nii moom mooy Rayane di doomu Aydan mu ngi si 11 mois moom añoo la ba léegi foxagul Ngoné Latyr mooy yaayam. si jeune mâle bi moom tamit doomu Aydan la moom mooy Aline Cissé waaw moom mu ngi si di mois waaw ñoom ñaar ñëpp ay añoo lañ. te boo leen xoolee tey jii ñu ngi bëgg a dab seen ko quoi si yenn kii côté yaayam xaritu jëkkëram mooy yaayam xaritu jëkkëram mooy fël mag ba tey ñu ñëwaat fii si si ñetti jeune mâle yi nii ñaari ay seex lañ ñoom dañ jël ay doon teg ko ci xaritu jëkkëram mu ñaari seex yi ñoom ñooy rakku jeune mâle bii nii euh, Aline Cissé beneen bu weex bi ay doon lañ jël jox ko Zara Bale mu beneen jeune mâle bu weex bi mâle bu noir bi nii moom recul la ñu liggéey bi kii nii ñu xam ne tey jii nii war nañ mën a changer li liggéey bi ñuy profité waale ñuy profité waale di remercier waale aussi euh, Tafa Diallo moom bergerie bi bu demee ba toll fii nii joué si benn point bu am doole quoi parce que am na xar yu bari yoo xam ne si moom la jóge fii nii si lañ dem si moom mu jox ñu jeune mâle bii nii di doomu Hamilton ku ne Hamilton sa xel day dem si maxu sëy maxu sëy lañ jël jox ko beldaam beldaam di doomu saalum ak café touba xam nga si côté yaayam aussi saalum la te tey jii nii ku ne saalum xam ne tey jii nii moo fiy def xar yu rafet yi te laadum bu dul dara moom avant tout li ngay njëkk xool bu njëkk ba sax boo daan gis xar mu rafet da naan kii laadum la moo tax ñu tënku ci loolu noonu tey jii bëgg a travailler ay doomu ay doon ñu bëgg gànn ngay miin yi eggali liggéey bi quoi looloo waral recrue boobu ba tey ñu ñëwaat si si añel yi production Aydon côté jigéen quoi kii nii mooy Fatou Bilal moom tamit doomu Aydon la moo fi nekk taawam bu jigéen quoi. mu ngi si 11 mois ah. ok ba tey ñu ñëwaat si beneen beneen beneen euh, espoir mën nañu ab espoir la quoi parce que beneen la la def porté li mu ëmb nii mooy deuxième porté am moom mooy jirim bi sànq si biir wax mu ngi leen doon expliquer histoire bi moom dafa nàmp un mois rek yaa yi def. mamit gangreneuse moom moo ko doon nàmpal ak biberon moom la doon nettali sànq quoi. kii moom mooy Zara moom doomu kii la doomu doomu Tupac la yaayam mooy xaritu jëkkëram bële moom moo jur ñaari moto moo jur moto bu góor bi bi ma la doon won sànq moom moo ko jur quoi. ba tey ñu ñëwaat ci añal bi moom añal la moom ñu ngi ko jëlee si Siré quoi champion Siré ñu koy nuyuwaat moom doomu monument la si côté yaayam booy séeréer kii moom. mooy doomu jirim bi jirim bi lañ jël boole kook aydon moom tamit doomu aydon la kii moom mooy mooy yaayu gétt gi moom moom tur bi du leen ko wax damay bàyyi borom ñëw présenté leen ko xam naa ne foofu lay gën a safee quoi moom bëgg na xar bi bëgg koo xam ne tey jii nii moom rek moo moo moo ma ci doy quoi pour mu présenté leen ko damay bàyyi Marème ñëw def présentation bi. waaw Alsaan kii moom maa koy présenté sama bokk puisque sama bopp laa ko tuddee mi xaytu jëkkëram. muy magum gétt gi moom moo fi njëkk a ñëw comme femelle si xar yi waaw defal na ma lu ne nag jëral na ma lu ne fii xar yu baax yi rafet yi yëpp moo leen ju macha allah ma bëgg ka loolu nag dëgg neex yàlla te dekk sama bopp aussi boole ci waaw. <laughs> kii mooy bébé caba sama doom bi laa ko tuddee moom fii la juddoo Saara bale mooy seexam Saara mooy seexam moom doomu euh, tupak la xaatu jëkkëram mooy yaayam. waaw moom Saara kii bébé Thiaba la tudde bi may Yacine boobu bi may Yacine boobu moom bu muy bi xeetu di ñëw ñoom la àndaloon ñu nekk ay moom ah Ngoné la àndaloon ñu nekk ay mbote bi ñëw fi ñoom àndoon nekk ay mbote ki may Ngoné Latyr ki may Ngoné Latyr moom Ngoné Latyr doomu tupak la moom moo jur euh, moo jur mooy taawam mu teg si seexi jigéen yële. aywa mbokk yi yaakaar naa ni euh, apprécier ngeen bu baax macha allah li ngeen gis fii nii euh, ci bergerie xaritu jëkkëram mu nekk ay sujet yu rafet mu ànd koog nag ay xaritam ak mbokkam yi di ko jàppale ci liggéey bi bu baax a baax euh, madame Ndiaye say xarit ak say mbokk ñoo nekk ci liggéey bi nekk équipe bi nekk di jàpp ci liggéey bu baax ñoo nekk nii mën nga ñu leen a présenté. ah ñii ñoo may jàppale si bergerie bi ku si mel ni Idrissa sama cousin la. waaw ki aussi sama rakk la bokk ndeex baay. papa day jàpp si bergerie bi. kii moom mention spéciale. Fodé da siy jàpp. guddeeg bëccëg moo nekk ci xar yi. macha allah moo koy ñaanal. kii moom waxatuma ay waxam moom dama koy bàyyi yàlla rek. waaw ndax lépp moom la aussi nag. lépp moom la. moo si jàpp depuis commencement ba léegi nii. dama koy ñaanal daal moo xam ni bëgg yàlla na ko yàlla defal. Mm-hmm. mu yokk ba yëg moom xar yàlla may nak ci daal. yàlla may nak mm-hmm. ci xar bu baax a baax daal. aywa doon lépp nga jëlaat ko nag lépp dëxañ ko jox ko benn nit muy kan. ah sama sang bi. aywa Ndiaye may sax Séga. Ndiaye Birahim. Ah, ki baax. ki bëgg njaboot ki fonk njaboot. dama koy ñaanal yàlla rek mu di ko suturaal yàlla aal ko yiir ko musal ko muccal ko suturaal ko ci barke Seydina Muhammad foog dama koy bàyyi yàlla daal aw ma yàlla mi am fayam yàlla na ko yàlla sama bàyyi sang boobu sama sang bi mu dund ba sang bi di ko teral rek amin ci ñaan yooyu njaay jaata jaay yaa loolu defe naa euh, doyaluñu. Ah. waaye nag buñ ñëwaatee mu neex. Ah. adresse bi ak numéro de téléphone bi. adresse bi mu ngi nekk ci presse. Mhm. ginnaaw Auchan bi Médina Zac. Mhm. téléphone bi 77. 602 13 39. 13 39 waaw. aywa mbokk ak xarit lii mooy li nga xamante ne moom lañ leen eh, jëlele woon ci seen bergerie xaritu jëkkëram mais leen di bàyyiloo xel nag. kii nga xamante ne mooy Gana Gueye Gana Gueye wax nañ leen ni mooy recrue bi nga xamante ne moom moo fi ñëw nekk doomu kan Hamilton Hamilton nekk doomu Maxusey ak kan Beldaam na ngeen ko bàyyi xel buñ fi jaaraatee fekk mu nekk dox yeneen i jéego ñu bàyyi leen ngeen apprécier ko di leen jox rendez-vous ci beneen numéro ak beneen invité incha allah allez à bientôt may télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV